يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المدمل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى, عسى ربك أن يبعث عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بوك جوليتي بوك سوبيتي الله أك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوغ لين دي زياره بو باخ silsila waxtaan yi nga xamante ni moom la ñuy am bis bu nekk di ko séddoo ak yéen euh, ci tabaarakallahu tegtal yi nga xamante ni yàlla jàngal nañu ko ci alquran ak ci sunna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mel nii fa tabaarakallahu ñoo ngi ziyaar ñëpp ci guddi àjjuma ji di ñaan yàlla mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla mu bari mu néew te jox ñu suñuy càkkutéef te dàqal ñu la ñu ragal lu wa batinan di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi yàlla may leen jàmm di ñaan yàlla suñu réew ma yàlla def fa jàmm def ko ci réewu jullit yëpp def ko ci àdduna bi yëpp yi nga xamante ni moom la ñuy jëm dëkkmal si yàlla yàlla defal ñu ci jàmm mu jàll ci jàmm kenn bañ cee gaañu kenn bañ cee gaañu kenn bañ cee gaañu le jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi ñoo ngi ñaanal tamit mbokki juliti ak mbokki taliba yi mbokki soppe yi nek ci all bi Tabarakallah, nek ci ay xat-xati ki tis te amuñu fenn fuñu joyto jooytoo amuñu fenn fuñu daw ludul yermande yalla ak ndimbalam yalla yalla yàlla fekk leen ak yërmandeem fa tabaarakallaahu eh, ñoo ngi ndokkel tamit suñu mbokk yi nga xamanteni jël nañ fi soxla ci digënté bi ku melni ni Ibrahima Fall ñu xam ko gën ko xam ci Touré Fall ak soxna Xadi eh, Mbay tabarakallah di rak ci Papa Latir Mbay ñu ko jii ñoo ngi ñaan yàlla mu barkeel seen i sëy su ko defee comme ni ñu ko doon defee bis bu nekk rek ñoo ngi toog ak suñu soppee Thierno Omar Kane fa tabarakallahu tey ñu war a ubbi benn euh, bunt bu am solo ci euh, euh, waxtaan yi nga xamante ni dafay jëm ci li ñuy wax guddi fa tabarakallahu guddi di lu am solo di lu rëy ndax yàlla moo ne yonent bi xumil layla waaw xumil layla donc guddi ci boppam dafa am ay mbóot yu bari yu ci laxasu dem na ba sama borom di waat ci guddi naan wal layli iza yaghsha ak yeneen tegtal yu bari yu bëree bare bëri bare bare bare bare bëri hmm. ko defee nag yooyu lañ bëgg a bokk jàngat ko kon ma jox Thierno Omar mu nuyoo incha allah su nuyoo ba noppi ñu def introduction bi incha allah su ko defee du ñu ñëwaatee nag ci suba ak ginnaaw suba ak semaine bi yëpp ñu leeral guddi ak li ci laxasu ak dooley guddi ak dimension yu guddi ak guddi ni mu nekkee buum gu jokkale waaye ki ñuy sopp mooy yàlla ak ñi ko sopp muy jaamami bismillah cër noo war jërëjëf sëñ Mar ñoom ñooy nuyu di la ziar ñu jaajëfal ci sa taxawaay sant yàlla ñu may ñu toogaat ñu daan may ñu toog fii mayaa nga ren tey tamit ñu toogaat ñoo جزيان وكيب نيسيتان سفينة الفقراء إلى الله منك أبنت أبني منتنكين يعني دزار دلني دل ñaan di ñaanal yàlla di sàkku si yéen ñaan yàlla jàppale ñu zaahira ma baatina ñu ngi leen di gërëm di leen ziar loolu ak kàddu yi singor alhamdulilah rabbil alamin Thierno Omar sant nañ yàlla bu baax a baax julliwaat ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam euh, fa tabaarakallahu soo gisee ñu ne nañ waxtaane guddi euh, dafa am benn waxtaan wu yàgg wu ma defoon ci isra wal mi'raj li war ni mbokk yi ñoo ngi suivre waxtaan yépp mooy dafa may mbokk yu ma bind ci euh, jokkookaay yi

mu mel ni fa tabarakallahu euh, keroog wax naa ne euh, isra foo ko déggee rek guddi la waaw dafa am yoo xamante ni duñ ko waxee rek guddi lay am rañaan kenn du ko wax ci bëccëg rañaan guddi rek lay doon donc nag ma doon leeral ci ma doon junj ci waxtaan woowu lan moo tax ñu ñu ñu ñu ne guddi yàlla préféré yonent bi fekk si ko ci guddi waaw ma fe ma leeral yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ci euh, dooley guddi ci zahir sax waxuma la ci baatin zahir rek nga xamante ni guddi ci lañuy lijjanti lépp ci àdduna moo jaal na layla libaasan ju guddi sutura la guddi euh, waxtaanukaay la ñu soppante guddi la ñuy waxtaan soppe yépp guddi wax naa si dem naa ba leeraloon sax ne ndekete jokkoo téléphone sax guddi la gën a leer en Thierno mm-hmm. guddi lay gën a leer mm-hmm. connexion yi guddi lay gën a rapid mm-hmm. waaw am na yu bëri bëri bëri guddi lay doon doomu aadama yi li ci ëpp ci guddi la ñuy sosoo waaw guddi lu bëri ci lañ koy def ci lañ koy lijjanti kon guddi lu foor la loolu zahir bi la mais ci baatin tamit doo xoolee guddi da gis ne gaay bax baax yëpp seen cër yëpp ñoo ko amé ci guddi ndax beccëk bi jaamu la yalla obligation yi la faraid euh ah, moy julli wor gene asaka yoy yëpp beccëk yu ci beccëk lañ koy def té loolu ñepp ko bok waye rawante bi deug dëgg mooy ci nawaafil yi te nawaafil yi ñoo ngi koy défé ci guddi waaw yoy yëpp ma leeraloon ko ci dem bané euh ñi yalla di tag ñi ci ëpp ci biir alquran Euh, tàggewu leen bëccëg waaye guddi la leen tàggee tatajaafa junubuhum anil madaaji'i waaw ak ay aayaat yeneen yu bare baree bare yoo xamante ni sama borom day wax ne gaayam yi dëgg dëgg dëgg guddi la leen di gis ndeysaan fa tabaarakallaahu waaw mu mel ni loolu lu foor la lu am solo la lu lu lu lu lu jara bàyyi xel la ci baatin soo demee ba xool tamit ci wàllu ñoom suñu Omar ñii Thierno Omar guddi ci boppam di layl laylu soo ko calculer euh, laam 30 la 10 mooy 40 plus laam 30 muy 70 muy kun waaw nga xam ni kon euh, guddi waxtu ijaaba la waaw te waxtu mbootu kun fa yakun la te loolu yonent bi moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa xamal ñu ne ñu si ñetteelu xaaju guddi gi sama borom dina jege jaam gi jaam jege nekk ci asamaanu benneel noonu laa koy waxee pour nit ñi ma bañ a bañ a juum ci déggin wi dégg na sama boroom di wax ne kan moo bëgg jéggalu ma jéggal ko ku bëgg a ñaan ma may ko waaw kay ku am aajo ma fajal ko ko loolu la sama borom di wax ba fajar jot kon loolu mooy martaba kun fayakun moo tax lay la soo ko soo ko calculer soixante-dix la lay jox te soixante-dix mooy kun waaw loolu junj bu rëy a rëy la te guddi mooy jokkale asamaan ak suuf mooy jokkale asamaan ak suuf gis nga laylu googu wax naa la ne soixante-dix la soixante-dix sept ba ca jiitu day junj juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf yi ak juróom-ñaari ak juróom-ñaari ak juróom-ñaari ak juróom-ñaari ak juróom-ñaari boo mat juróom-ñaar muy 49 di am leneen lu mu taxawee loolu ñoom Thierno Wane ñi ñoo ko xam su ko defee kon. ci zaahir guddi dafa graw ci baatin guddi dafa doy soo demee ci alquran tamit guddi dafa nekk lu doy waara doy waara doy soo demee ci sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi aussi guddi da nga ciy fekk ay tegtal yu bëree bëree bëree bëree bëri incha allahu taala duñu yàlla dimbalee mbokk yi ci waxtaan yii di ñëw danañu euh, leeral dooley guddi ci zahir gën dinañ ko gën a toj dooley guddi ci baatin ndax benn rek laa leen ci jox te Thierno Omar am na yeneen ñu mu ci war a indi dinaa indi dooley guddi ci alquranul dinañ indi dooley guddi ci sunna yonent bi waaye dinañ indi dooley guddi ci yonent bi sallallahu alayhi ak guddi ak gaa yu baax yi loolu mënul ñàkk waaw su ko defee dinañ ko leeral dinañ te ku wax guddi tamit di nga wax jaamu yàlla ku wax guddi di nga wax naafila dinañ leeral tamit yonent bi nan la daan naafila ak ñaata rakka la daan naafila ci weeru koor ak lu dul weeru koor ñaata rakka la naafila ak nan la ko daan taxawoo dégg na nan la daan soññee nit ñi ci guddi ak moom guddi moom yonent bi à part naafila yi yan activité la daan def guddi moom yonent bi sallallahu alayhi waaw xam nga liy junj loolu Thierno Omar mooy ci bidaayatul wax yi sànq wax naa ñaari aay yooyu yaakaar naa benn bi sax dama ci xaw juum tuuti waaye di ngeen ko rectifier incha allahu taala borom bi tabaraka wa taala moo wax eh, sayyidna muhammad sallallahu alayhi ne ko yaa ayyuhal muddathir qum fa andir fii mu ne ko yaa ayyuhal muddammil qumil layla qumil layla gis nga soo gisee ci eh, ci début lislaam bokk na ci ndigal yi yàlla njëkk a jox rasulullaay mooy taxawalal guddi loolu incha allahu taala du Thierno Omar defee taal yi xam léegi dinañ ci ñëwaat gën cee xuus wax ne eh, am na lu yàlla digal yonent bi te ndigal yi mu ko njëkk a digal daf cee bokke muy naafila guddi di taxaw guddi pour pourquoi parce que am na loo xamante ni kenn mënu ko defar ci bëccëg da koy lijjanti ci guddi gi soo xëyee suba mën koo defar moo tax yonent bi danaan fanaane naafila su xëyee suba comme waxal leeru yàlla dugg sa dënn kon loolu ñëpp ko war a déglu ah, mooy ñi nga xamante ne ay boroom xam-xam lañu ay euh, sëriñ lañu ay taalibe lañu ay ñuy góorgóorlu ci yoonu yàlla ndax am na loo xamante ni kenn mënu koo def te fekk yow doo doo ñàkk nelaw guddi soo ne wax ak nit ñi ñu dégg la kooku ñàkk nelaw guddi rek moo koy maye <laughs> waaw ndax yàlla moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon Thierno Omar guddee ak i mbóotam ak i mbiram su ko defee incha allahu taala soo soo àggalee. ma ñëwaat suñu paree ñu mën a yëkkati jotaay bi ndax xaw na guddi fii ci ñun lool waaye comme tey guddi lañuy waxtaane euh, il est une heure fii ñun donc yéen yéen a ci minuit vingt deux euh, ñeneen ñaa ngi waa Espagne waa kii ak waa Amérique ak waa euh, Canada ñoom it ñoo ngi seen i waxtu donc moo tax ñu xaw a guddee tuuti lu ñàkk waaye nag incha allah taala dinañ indi ay sew-sew yu bare bëree bëri ci wàllu guddi yal nañu ci yàlla boole dimbali Thierno Omar bisimilah allah. ok jërëjëf sëñ bi ñu ngi jaajëfal ci sa leeral bi nga andi ñu ngi si jaajëfal bu baax di sant suñu borom tabaraka wa taala bi ñu may ñu commencé ko tamit ci guddi aljuma ci guddi bi dana tedd ci guddi hmm? ñu ngi sant yàlla bi ñu may tamit ñu commencé ko ci guddi aljuma waaw guddi gi nga xamante ne guddi yëpp moo si gën a tedd ci ci semaine bi waaw sallallahu alayhi wa sallam danaan guddi aljuma loo si ñaan yàlla nangu te yàlla may nañ ñu commencé ko ci guddi aljuma ñu loolu tamit ñu ngi ko sant moom suñu borom tabaaraka wa taala euh, comme ni nga waxee rek ci euh, njëriñu guddi guddi li si ndaxas dafa bëri maanaam guddi turam dëgg sax mooy suut sutura lépp lu ñuy dox ci sutura si guddi lañ koy doxee bu ñuy defaree ay sëy guddi lañ koy lijjanti ji bu ñuy euh, bu amee ñu ñu réeroo bu ñu leen dem di leen jubal guddi lañuy dem même jigéen bu jegee ci kër borom këram dem ñu koy andiwaat ci guddi lañ koy lijjanti pour andi ko guddi. waaw ah, sax. luy sëy guddi lañ koy jël andiwaat donc guddi lu bëri lu bari lii la sutura la. Mm-hmm. donc loolu yëpp ci wàllu àddina ci wàllu wut yàlla tamit lépp comme ni nga ko waxee ci ci guddi lañ koy lijjante ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi Euh, umit leele bi mënoon na ko wax bëccëg mais wax ko bëccëg def na ko umit leele guddi la ko wax donc euh, loolu yëpp di da si juñ njëriñ guddi euh, ba si jaamu yàlla nee li nit di jaamu yàlla guddi lay gën a gaaw a nangu ak bëccëg comme ci tariqa cheikh dañ naan benn salaatul fatih guddi moo ëpp

ci bëccëg nga koy amee waaye guddi mënoo leen jot foo koo fëgg guddi danaan la danaan duggaat bi jeexam fatun fatun donc euh, guddi lu am solo ci wàllu jaamu yàlla ndax euh, nee nañ ko am cër ci yàlla rek yaa ngi ko amee ci guddi waaw ko euh, yàlla tànnul bëccëgu qadri def ne laylatul qadri alquran même alquran ci guddi la wàcc

bëri na loo gis bëccëg mu yéem la lool lool fekk ci guddi lañ ko lijjantee. ci lañ ko togg. ci lañ ko togg bëri na ko am cër nga gis ko yéemu ci mbiram fekk ci guddi la ko amee yaa ngi ko gisee si bëccëg ci guddi la ko donc euh, di si ñaan yàlla rek dafa ñaan yàlla si guddi si yàlla nañu yàlla may mber barki guddi euh, li mu ci wanoon mag ñi ba mu jaral lu ne li ci wanoon yonent salaay salaam ba guddi jaral ko lu ne yàlla nañ ko yàlla woon yàlla defal ñu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa donc guddi euh, comme ni nga ko waxee lépp ci lépp ci guddi la euh, li si laxasu la dafa bëri mais boo xoolee géej guddi lay gën a dal ka bëccëg géej guddi boo ko demee lay gën a dal bëccëg même même géej day noppal donc boo gisee mag ñi di si rayante ndax xam nañ yàlla dafa def mbóot ci biir guddi ba pare diisal guddi

waaye heure boobu la yor ay ay di ko sàng nit ñi rek di ëf day xool même nit bu feebaree bu demee ba ba heure yooyu day day tane demee ba ay quatre heures cinq heures six heures da ngay gis malade day xaw a tane foofu. day feex day feex mun a nelaw. nga xam ne kon guddi. mboota nga fa ngi ci biir ci biir guddi. Euh, boo xoolee même ñaari waxtu ñaari waxtu yi yonent bi sallallahu alayhi di wax naan mhm. même booy. raam mhm. fexeel ba fekkee ji ci jàkka ji mhm. muy gee ak suba mhm. yooyu ñaari waxtu yëpp ci biir guddi la bële guddee nga génn mais bële ci biir guddi la effectivement loolu yëpp euh, boo doon raam raamal ndax njëriñ si nekk boo xoolee ñaari waxtu yooyu yëpp ci ci guddi guddi la na ba wax sax ne ku koy julli. Mhm. kenn du la mën a liggéey. ku koy julli ci mbooloo waaw mooy gée ak fajar. kenn gis nga mag ñi duñ ko tardé mukk. ku koy julli ci mbooloo. Mhm. kenn du la liggéey. ndax nee nañu yàlla moo lay sàmm ba keroog fajar du jot. kenn du la mën a liggéey. donc loolu njëriñ njëriñ bu lay te yonent bi wax waxaan na ci leneen yonent bi mu wax ci guddi kenn kenn xamul. gée ak fajar. Mhm. boo jullee gée ci ci mbooloo. am nga xaaju guddi. xaaju guddi ku jaamu ku ku ku jaamu yàlla guddi xaaju guddi ku naafila xaaju guddi naafila guddi mhm. yow am nga wa euh, am nga yoolam. Mhm. mu ne ku dem ba euh, fajar tamit nga julli fajar am nga yoolu guddi gi yëpp. Mhm. te yow fanaanoo naafila fanaawoo dara yow da dem julli gee ci. mboolo mboolo. fajar ñëw nga jóg dem julli sa mboolo am nga yàq kii fanaanoo toog di wird wala di naafila di lu mu mënta def yéen a yéen yéen a tolloo waaye tamit doo la koo xamante ni. da nga dem julli gee mu julli gee ca mbooloo nga ñëw nga ñëw tëdd nga tëdd moom mu toog nga fajar nga jóg mu jóg doole ñam moom it dalay rawee foofu fa la ñu rawee ñëpp nag ndax li yenente baawoon fële am nañ ko ci guddi ñoom daal duñ nangu guddi raw lañ ci daal même ni yenent bi sax naan euh, am nga yenent bi danaan wax naan euh, yenent yàlla daawud xaaj guddi gi ñetti xaaj mu jaamu yàlla euh, xaaj bi ñaareel xaj bu mu noppalu ñetteel bi mu jóg te boo xoolee ma ñu am ñoo xamante ne ñett xaj yëpp lañuy jël ndax bañ dara dara rëcc rëcc leen ci donc loolu yëpp ci njëriñu guddi la ma delloo la kàddu bi waaw xaj Omar jërëjëf jazakumullahu xeeran tabaarakallahu lii moo tax ñuy bëgg toujours ngay participer ndax yaa ngi dolli yeneen i dégg-dégg ak yeneen i gis-gis te incha allahu taala point yi mu tudd yëpp dinañ ko def jour espécial tey dañuy ubbi rek pour wax ne euh, kii suñu soppee di suñu kilifa di Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla bi mu ko joxee ndigal ne ko wooteel dafa mel ni daf ko wax daf ko wax ne mënoo woote nit ñi dégg la wuyu la te fekku doo jug guddi mënul nekk moo tax mu ne ko xumil lay la ak xum fa anzir waaw mu mel ni yooyu ay junj yu rëy rëy la yàlla nee na ko yaa ayyuhal muddathir yaa ayyuhal muzammil waaw nga xamante ni benn bu ci nekk junj la kii dafa làmboo sër bu woyof wala darab bu woyof wala mbàjj mu woyof mooy mu muddathir fii mu mbàjj mu sàngoo mbàjj mu diis mbàjj mu tal mu mel ni ku siburu nit ñépp tiim la sa yaram tàng jër fekk yow yaa ngi yëg tàng euh, sedd boo xamante ni suñu indoon fukki mbàjj nëpp la ko du tee nga bëgg ñu dolli yeneen mbàjj loolu mooy muzammil waaye gis nga yàlla dafa mel dafa wax bi ne ko yow kenn bindu la pour ñu lay nëpp ay mbàjj mm-hmm. kenn bindu la pour ñu lay nëpp ay sër yu nooy déedéet mm. yow yàlla ya man yàlla dama laa bind mm-hmm. pour nga jóg waaw moo tax mu ne ko xum mm-hmm. jógal gis nga ba yàlla waxee yonente bi xum ci la yonente bi gëj a toog ba tey jii ba tey jii sax toogul mm-hmm. moo tax bi mu faatoo sax toogaluñ ko dañ koo tëral parce que du toog dootul toog te ñi ànd ak moom tamit ba ñu déggee xumuk yonente bi sallallahu alayhi wa ba tey toogatuñu waaw ñoom xum googu aaya ba nekk ca ginnaaw moo koy firi mooy fa firru ilallah dañoo jóg taxaw ba noppi yàlla ne leen dem leen wuti leen yàlla wuti leen ngërëmal yàlla wuti leen njëggalu yàlla wuti leen wëli yu yàlla yi wuti leen ñi wuutu yàlla ci kaw suuf wuti leen gaay yàlla yi dem leen seeti jaam yàlla yi ngeen jox leen kàddu yàlla dem leen woote ci lislaam parce pourquoi parce que mbootu xum ga la jugal jugal waaw kon euh, bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla bind teg ko ci kaw mbindeef yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu njëkk ak ñu mujj ñii arab ak ñi dul arab mm-hmm. bu dee moom la yàlla jël teg ko ci kaw ñépp mm-hmm. ba noppi ne ko jógal kon mm-hmm. kan moo war a toogati kenn waratul toog moo tax incha allah nañ ci ñëw ci naafila yooyu euh, ak tegtal yi ci am yëpp yëpp yëpp yëpp ci mag ñeeg yëpp kon ku bëgg a defar àdduna il faut que nga ko ak loolu ñuy wax lal ak loolu ñuy wax nelaw su suñu waxee nag tàggalikoo ak lal ak tàggalikoo ak nelaw du doo nelaw ñàkk tëdd ci lal mais da ngay organiser sa dund moo tax dina am benn waxtaan woo xamante ni spécial xam nga lan la mooy nan la ñuy def ba mën a naafilu guddi am nay moyen lu mel ni yonent bi nee na dee leen sieste ndax ku dul sieste doo mën a naafilu guddi sieste su boobaa ñu leeral lan mooy sieste ak ban heure la ñu sieste ak sieste ñaata waxtu la war a durer comme Sénégal li ñuy def loolu du sieste loolu nelaw la xam nga añ ba suur tëdd nelaw ba cinq ne da ngay sieste loolu du sieste wa loolu waxtu woowu sax da waxtu sieste waaw moo ngoog yooyu yëpp dinañ ko leeral ak yeneen taxawaay yi nga xamante ni képp ku ko def ci bëccëg bi di nga mën a jóg fajar waaw dinañ waxtaane tamit njariñu jóg fajar parce que ku wax guddi ci guddik lislaam mooy fajar fajar mooy suba ci ñun loolu il faut ñu waxtaane ko parce que dafa ma xadis bu daw yaram bu yonent bi wax kooku direct spécial lay doon yonent nee na heure boo bëggee jóg fajar jógoo rek xamal ni iblis moo saw ci sa nopp laa ilaha illallah mm-hmm. man leen kon de am na ñoo xamante ne ñooy du ñooy duusu iblis mm-hmm. loolu daw na yaram de cerno mm-hmm. soo bëggee jóg fajar mënoo jóg xamal ni yonent nee na iblis moo saw ci sa nopp waaw loolu nag li koy waral mooy julliwoo gée julliwoo fajar ba tëdd musluwoo tegtal yi yonent bi jox lay joxe ci tëdd ci laab ci góor góorlu ci zikkar ci tudd yàlla ak yu bëri defoo ko su boobaa iblis am na si accès ci yow waaye soo defee lu yonent bi wax iblis amul accès ci yow moo tax du jóg fajar jotee da ngay jóg lu mel ni lekk lu dagan yu am nañu daal ay tegtal yooyu yëpp préparé nañ ko bu baax incha allah dinañ ci ñëw pour leeral euh, ñi bëgg a jóg guddi nan la ñuy def naafi la guddi nan lañ koy defee lan moo tax yonent bi daan naafi laa fukki rakk ak benn te nga dégg léeg-léeg ñu ne diw day naafila fanweeri rakk léeg-léeg nga dégg nit yàlla ñu ne day naafila téeméeri rakk lu tax loolu tegtal bi lan la parce que loolu yëpp dañ ko war a leeral parce que léeg-léeg nga dégg ko yaakaar leneen la fekk teg euh, tontu bu simple la la waaw su ko defee yooyu yëpp incha allahu taala euh, yàlla dinañu dimbali ci yërmandeem ba ñu mën koo leeral ngir kenn ku ci nekk ci ñun xam ni ah, guddi lu solo xam naa ni euh, Thierno Omar mm. nee nañu sëñ Mor ñëwatina na parce que léeg ñu gis ay titres yoo xamante ne dañ naan kii la mais lan lay wax. Mhm. fekk xamuñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam université am mais cours yi du jeex te lépp am na solo. Mhm. xoolal kaala bi ñu bindee kaala am na ñu bëri nee nañ ma waaw yow sëñ bi kaala loo ciy wax mhm. waaye bi ñu dugle waxtaan wi ne ma laa ilaha illallah ay way sëñ bi lii ëppoon naa bañ a def. tey jii bi ñu bindee euh, tiitre bi. ne dañuy waxtaane guddi am na ñu ma bind sànq sama euh, téléphone mm. ne ma sëñ bi looy wax ci guddi mm. pour ñoom parce que mun xam mënuñoo sa yaakaar ni dara war nañ ko ci wax fekk guddi mooy lépp mm. allah allahu taala kon ñoo ngi waajal liggéey bu am solo jëmale ko ci guddi ngir nit ñi xam ni léppi àdduna léppi àllaaxira moo ngi doxee guddi te àdduna bii sax àdduna ci boppam moo ngi moo ngi baaxee moo ngi baaxee ci guddi àdduna ci boppam moo ngi baaxee ci guddi pour pourquoi parce que ki gën ci àdduna muy Seydina Muhammad mais guddi la ñëw mm-hmm. guddi la ñëw mm-hmm. guddi la ñëw sallallahu alayhi wa sallam bien que bi muy bi ñëwam di yegg see su su subaa ngi ñëw mm-hmm. ñu daje mu mel ni day bañ moom it suba bañ a waaye guddi la yonent bi ñëw moo tax gàmmu guddi lañ koy def waaw kon kon guddi ci boppam mbaaxam ak ak cëram moo ngi jóge ci yonent bi ñëw gi mu ñëw ci moom moom guddi waaw incha allahu taala bi ñu yàlla dimbalee danañu indi euh, sew-sew yooyu yëpp ak question yooyu nga xamante ni dañ koy laaj ci guddi ak tontu yi euh, mangook si lii Thierno wax tamit junju loolu tamit dinañ ko def direct spécial ci salaatu faatix yi guddi ak salaatul faatix yi bëccëg bokkul de bokkul de moo wax sa laazim di ko jiital moo ëpp doole parce que salaat faatix bu nekk téeméer lay taxawee waaw bala ngaa tëdd nga def limu salaatul faatix même bu dee téeméer la mais da ngay ah doo defee juróomi téeméer am cinq cent mille ah cinquante mille ma nga loolu dafa am solo sa yooyu ay sew-sew la yoo xamante ni du ñu yàlla dimbalee mm-hmm. yooyu yëpp dinañ ko leeral ku ko defee kenn ku ci nekk mm-hmm. euh, xam ni guddi mooy waxtu wi nga xamante ni mm-hmm. ah soppe yi ci lañuy ñuy waxtaan ñi nobante ñi bëggante ñi soppante waaye ñi sopp yàlla aussi waaw dégg naa yàlla euh, benn góor yàlla nee na sama boroom loolu lay wax euh, gaayam yi yi mu bëgg a tappal ay mar martaba naan leen soppe yaa ngi waxante te yéen yéen a waxoon ci bëccëg ni man ngeen sopp man yàlla jug leen wax ak man waaw jug leen wax ak man <laughs> waaw kon nag euh, guddee ngoog dongo euh, ko euh, léeg-léeg sax ñu ne guddi daa am borom waaw léegi ñu wax loolu fekk boobu ñoo ngi junj jinne jinne yi waaw fekk déedéet guddi ko ko moom mooy góor yàlla yi <laughs> góor yàlla yi joo ko moom góor yàlla yi jinne yi ci am nañ ci cër waaw mais góor yàlla yi ñoo ko moom guddi am na ay animaux sax yu ñu tuddee ay animaux nocturne ak ay animaux diurnes waaw ay ak jur yoo xamante ni ay euh, ay ay ay ay euh, jur yoo xamante ni ay animaux yoo xamante ni euh, guddi rek la ñuy génn ci la ñuy dox seeni soxla ci la ñuy lijjanti li ñuy def yëpp waaw yooyu yëpp dinañ ko leeral parce que guddi lu am solo yàlla nañu yàlla boole dimbali may ñu ñuy taxaw guddi te yooyu yëpp dinañ ko leeral parce que naafi la guddi tamit niñ ko nit ñi compliqué lay demeewul noonu déedéet dinañ ko leeral jox leen ay tegtal ay naafila yu baax mm-hmm. yu simple yu yu am solo mm-hmm. yoo xamante ni euh, di dina ñu dimbale ci sunu àdduna mm-hmm. dimbale ñu sunu àllaaxira yàlla ñu yàlla gindi yàlla ñu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla yëkkati yàlla nañu yàlla defaral yàlla ñu yàlla yombalal di jóg guddi yàlla ñu yàlla yombalal di yeewu dinañ waxtaane tamit guddi ak bitim réew Thierno xam nga ñun suñu guddi bokk te guddi Sénégal déedéet bokkul de parce que ñun léeg-léeg ñu am guddi yu gàtt fi ne nii ci lañ jëm dina dem ba fajar day nekk trois heures et quelque trois heures trente léeg ñu ñu julli fajar tamit daanaka huit heures ci suba gis nga guddi gi ni muy guddee léeg guddi gi ni muy gàttee léeg sedd fii jóg fajar yombul de waaw dafay sedd waaw doo dégg dara waaw waxoon tubaab na ngay génn dem di di dem jàkka ja mhm. di ko jullee ca mbooloo kooku yeneen affaire la yooyu yëpp dinañ ko waxtaane mhm. ngir ñun ñëpp ñu mën a gindeeku yal nañu yàlla boole dimbali kon Thierno Omar mhm. bismillah nga dolli ci dara ñu soog a euh, allah def conclusion bi bismillah bismillah ñoo ngi ziar jigéen hmm. euh, jërëjëf sa taxawaay ci njëriñu guddi du bëri ñu ngi koy sante borom bi tabaraka taala di kontaan eh, bu baax ci ni ñu eh, ko leerale ni ko ni ko andiwee ci yonent bi sallallahu alayhi ak gaa yu baax yi yëpp ñu ngi koy rafetlu di sant yàlla am na yu bëri sax yuñ ñu ci xamoon mais gën nañu ñu ko leeralal ñoo ngi koy sant ñoo ngi ci sant bu baax ci barke guddi moom ni nga ko waxee dafa dafa yaatu ci yonent yi ci ñi ñu baax ñi ba lépp la gis rek maanaam ci guddi lañ koy lijjante même boo xoolee même bi ci yonent yàlla Suleymaan bi mu naan rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-wahhab guddi ñëw mu tëdd yaay ji yeewu Suleymaan li ma la dégg li ma dégg nga ñaan sànq ak nelaw du ànd da nga jóg Euh, donc lépp kon mu ngi si guddi mu ko ñaani bëccëg yàlla ji yeeku ci euh, yaay ji yeeku ci guddi ak yonent yàlla Suleymaan ngay li ma dégg sànq di nga ñaan sa borom ak mhm. nelaw du ànd mhm. donc da nga jóg loolu boo koy sàkku guddi nga koy sàkku waaye du waaye du bëccëg ndax euh, fa lay gën a jege soriwul sax waaye ci lay gën a jege ay ay gaayam yi ci lay waxtaan ak ñoom di di leen tàppalay garaat comme ni ñu ko waxee <laughs> donc loolu yëpp ci barke guddi la ñu ngi koy sant yàlla ñaan yàlla euh, yàlla may ñu tamit ñu toogaat fi suba incha allah. incha allah ndax xaw naa guddi tuuti. Mhm. Euh, ma dellu kàddu si. jërëjëf Thierno Omar jazakumullahu xeeran mbokki juri ci mbokki soppee ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon euh, guddee ngoog ak tegtal ya mhm. fa tabarakallahu ak mbóotee ca nekk. de ca laxasu incha allah dinañ ko leeral yépp incha allahu taala yal nañu ci yàlla jàppale yal nañu ci yàlla dimbali ñoo ngi ñaanal mbokk jullit yi faatu yépp ci àdduna bi yàlla yàlla yërëm leen jéggal leen ñoo ngi yeesalaat suñu ñaan ci suñu réew ak réew yépp yàlla def jàmm def sutura def jàmm ci xol yi ci jëmm yi kenn bañ a gaañu kenn bañ a gaañu ba gaañ kenn bañ a gaañule bijaahi sayyidina naa nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam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 ndax fajar gi léegi daanaka ci ñun fii six heures six heures et quelque la rek mm-hmm. ah tuuti rek lañ ci teg tabarakallahu euh, Sénégal tamit la même chose donc ñu ñaan yàlla mu nangul ñu ñun ñëpp defal ñu mbóotum guddi mm-hmm. jox ñu leeri guddi jox ñu teraangi guddi yëkkati ñu ci zaahir ci baatin bi mm-hmm. jaay seydna wa nabina walaana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam du ko defee insha allahu taala bu subaa suñ ñëwee danañu euh, am euh, lu ñu yu ñu leeral aussi ci malaanum wasifa wi ndax waxtaan bi ñu ci defoon keroog xam nga keroog bi ñu bi ñu bindee tamit malaanu wasi fa nee nañu ñii lu ñuy waxati mhm. waaye fa tabaarakallaa bi ñu paree am na question yu bëri yu ci ñëw mhm, bu subaa suñu ñëwee bala ñuy tàmbali danañ ko ubbee ñu tontu ci ci ay soxna yu baax yu yu ci laaj ku ci mel ni soxna Fatima Mbay mhm. euh, taaliba tijaan bu baax la ku sell ku set ku baax tabaarakallaahu euh, doon laaj ci malaanum wasifa ak jigéen ay am na yum ci laaj daal bu subaa suñu yàlla dimbalee dinañ ko leeral ba ñëpp mën cee barkeelu bañ koo jëriñoo wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin yal nañu yàlla dimbali defal ñu mbootuk ñaan googu cheikh alxaaji omar fuuti daan ñaan wa tahiri nufuusa wal arwaha wal qalba wal asrara wal ashbaha alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Thierno Omar jërëjëf kon ba suba rek incha allah yàlla sàmm ñu sàmm leen sàmm mbokk yëpp gërëm gërëm gërëmal yal nañu yàlla gërëmal suñuy wéjur ak yu yi alhamdulillah